Daouda ma ñu wax sa patron nga bara nga ba ziar naa la ñu lay delloo ziar ñu bu wér ça va na ngeen def ci gis ni sëñ Modou Niang sa papa sa xarit génn àdduna nga bàyyi seen yite yëpp ngeen ñëw ba ngeen yëgee bis bi lu leen def waaw metti métti na lool mais dañ koy sante yàlla ndax yàlla moom kenn du xëccoog moom dara donc euh, yàllaa ko soxla rek waaw léegi nag dañ koy ñaanal rek fii mu jóge fi mu jëm yàlla na ko gënal fuuf di ko ñaanal yàlla jégal kay bàkkaaram di ko ñaanal euh, mu xaare ci àjjana yu gën a kawe ba pare njabootam bii fi des ñi leen di ñaanal ñoom tamit yàlla jàppale leen bu baax a baax a baax a baax ndax sëñ Modou Niang ku baax la soo gisee lii rek nga xam ne sëñ Modou Niang ku baax la amul problème ak kenn donc euh, suñu ñëwee teew dafa li jaadu ndax suñu papa la ñu ñëpp euh, ba pare lu mu liggéey ci làmb ñun ñii sax liggéeyuñ ko lu du dara moo tax ñu koy tuddee sax le meilleur promoteur ndax journée yu bëri yu muy def te xoolu ci dara xaaru ci dara lu dul bëgg di dimbali doomu jàmbur yi doomu sénégalais yi mu nekk un vrai patriote donc euh, vraiment sëñ Modou Niang incha allahu rabbi ci lu mu jot def ñun rafet nañ ci njort xam ne incha allah dana yegg àjjana. ñu gis na ba nga yegee loolu sa face to face bi da nga fo da nga ajaat ba pare jënd ay nag indi fi. waaw dafa jaadu xam nga Sénégal moom ñun ñëpp ay mbokk lañu. donc euh, su ñu amee tiis bu tollu noonu jaadu na ñu jël face à face bi puus ko euh, du woon suñu wareef ñu def loolu ba pare teranga moom teranga la àdduna mooy teranga lu ñu def yëpp xeem nañ ko mais sant yàlla rek sant yàlla. waaw moom lay wax sa mbokk promoteur la lay doon. ñu jàppalante ndax ku xool lii ñu xam ne que àdduna du dara àdduna amul solo ñun ñëpp benn lañ donc euh, nañu gën a góor lu tax ñu jóg mooy jàppale la jeunesse. donc mën nañoo ànd mbooloo jàppale la jeunesse euh, xeexoo suñu biir waruñu donc euh, ñu ñëpp benn lañ comme ni ma ko waxee ay jullit lañu ba pare Sénégal ñëpp euh, ñu ñëpp ay ay frère ñii suñuy papa lañ ñii suñuy rakk lañ ñii suñuy mag lañ donc bés bi war na yar ñu bari ci lu bëri donc ñu koy sant yàlla bu baax a baax a baax di ñaanalaat suñ Modou Niang yàlla na ko yàlla jégalaay bàkkaaram xaare ko àjjana. ci kàddu sénégalais yëpp ñu ngi lay jaajëfal ndax jëf am na ñu tëgg làmb ñoo xamante ba sëñ Mor Niang gaañoo ñoom seen làmb pousse ñu ko yow nga pousse face à face pousse Sénégal yëpp ñu ngi lay jaajëfal ma xam. <laughs> waaw dañ koy sant yàlla rek dañ koy sant yàlla jërëjëf. <laughs> Abdoulaye Khan Ndiaye ñu ngi lay ziar. ñu ngi baax. seen papa seen xarit sëñ Mor Niang génn àdduna ngeen bàyyi seen yite yëpp ñëw. mais l'ami de tout le monde avant tout la paix loolu jàmm jàmm ko gën te la la doon woote ba sunu borom moom ku ñëw bi xam ni baax rek am solo. ndax baax moom alalu yàlla la sëriñ Modou yàlla bu ca cat jiitu ci bàmmeel lii fi toog lépp ay promoteur lañu kenn mënul ni am naag moom benn xaar ma yàlla daawul créer histoire du créer ay jàmm rek lay dox maanu na yam fi mu waroon yem tarib taalibe woon moo waral taxawaay bi ñu def ko fi biñ fi ñëwee démb ñëwoon fi ci njaalu Gaston production ñëwoon fi aussi ci association authentique de lutte loolu doyut ànd nañu ak moom fekk ko keroog ca morgue ban fa jógee tey it ànd ak moom tey fii ci sarax ndax sëriñ Modou damay wax ne bu doon baax a yóbbu nit bu ku nekk wàññee li nga jëf ci lu baax sëriñ Modou du dem waaye yàlla mi ko xiital may ko xolub baax mun ko gën a soxla kon nag yàlla na ko yàlla xaare ci àjjana firdaws en tout cas daal ku ñu rafet njot na ci moom jëmb woon joo xam ne diggam ak doomu aadama yi nooyoon na def te it am na lu ma garçon wax barki démb nee na ma laat ma ne ko waaw mënu ma ko sedd dem ma ku sedd génn naa ku loolu nag du nit da koy wax rek pur créer ko nit lu nit bëgg wax ci lu nit lu neex yaakaar naa bu faatoo dañ ne la nga xam ci lu baax wax ko kon loolu lu mu wax lu nekk ci xolam la kon daal ñi ngi jaale njagañaa mi nga xam ne mooy taawam te moom ñu miin ko ak ay rakkam ak frère am yëpp di ko wax ne muy association authentique kuy nitu làmb kuy promoteur kuy mbër tey wax naa ne tey li fi nekk normalement kenn ku ci ne bu doon ku mu tëgg nga taxaw fi fii ba ba ngay dem ca bopp cat doo seen koy taxawaalu fii waaye nag yàlla na ko yàlla fay xolam ak jëfum ci nit ñi jërëjëf. ban jàngat la si promoteur yi. mais royukaay la exemple toujours yàlla wane boppam man de li may war mooy ku ma gën a baax waaye ku ma yaakaar ne mënoo maa yokk dara ci baax du ma taxaw sa wet loolu la nii nga gisee sama gaa yi ni ñu nekk gis nga vraiment jibee ngi Ibra Diouf Mbewaan Diamond Events ñoom ñëpp ñu àndandoo nekk bloc bokk ndey bokk bàyyi yéenante jàmm ndax kenn ku ci ne boo xëyee suñu borom dana la jox li ngay suturloo waaye nañ yéenante jàmm rek ndax sëñ bi sama turandoo nee na te sëñ Modou Modou Niang lu mu musaan wax la koy takk sëñ Blaat sama turandoo nee na boo yéene ñëpp jàmm tax ñëpp am jàmm waaye yàlla na la jàmmal sëñ Modou jàmmaloon na ñëpp lii rek mooy secret bi du leneen. Jibi Ndiaye ñu ngi lay ziar. ngi delloo ziar di rafetlu jataay bi ngeen ñëw fii di leen nuyu bu baax a baax di sant yàlla di julli ci yoon yonent bi di wax inaa illaahi wa inna ilayhi raaji'uun di xamal ne pape yi génn àdduna tey idool la woon ci làmb di royukaay di ci làmb man saa yu ma masaan a wax ci làmb taxaw ak moom ci làmb conseil yu baax rek la may jox ñu ànd ak waa authentique gépp ñëw jaale si njagañang di sun frère di wax ne sëñ du ñaa daal yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko baat bi ma mujj a wax kere bi ma dikkee place u njagañang daf ma daan wax ne ma bu rëy te miti bu tuutte ne ci jàmm moo gën góor góor lul te jàpp fi nga jàpp te bañ a yàkkamti di la jox conseil yoo xam ne nii boo ci nekkee doo am di nga am jàmm ñu ngi koy ñaanal daal yàlla jéggal ko yàlla yërëm ko ci barke Serigne Touba mi mu yàgg. promoteur mm. nga ñëw si bisam mu génn àdduna. ban jàngat ngay def si lii. waa sant yàlla rek di xam ne ñun ñëpp benn lan nan leen di rafetal man de kenn laay ñëwee ci àdduna ki may gën a def lu baax ku mel ni sëñ Modou ñaan ak yombul ci làmb ñu ngi koy ñaanal daal yàlla yàq ay leeram te taas nu ci barkeem ci barke Serigne Touba jërë ngeen jëf yéen seen liggéey rafet na trop macha allah shukran jërëjëf ayra jël ko ba am jël ko rek ba naa la waaw maa ngi sant yàlla bu baax di sant Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di sant sang-sang yi di sant sëñ Abdou Karim Mbacke borom maa xam la rawat na sama sëriñ Abdoulaye Wade sëriñ Modou Niang sëriñ Modou Niang ñëpp la tey kër gi fii kenn fi war a foon a xaj ndaxte bëri na mbër yoo xam ne ni si loxo sëriñ Modou Niang liñ jaare mais nag yàlla moo koy fay xolam di ko jaale nag sama sëriñ Abdoulaye Wade am lu ko loolu bés kanam yàlla di ko jaay nag ministre des sports Yankuba Diatara yaa ma dégg euh, kii li ko euh, ak Birahim Sène maa ngi koy jaare ak ku làmb ñëpp maa ngi koy euh, jaar sëñ Mourou Niang sëñ Mourou Niang dama koy ñaan yàlla yal na yàlla yërëm ko xare ko àjjana si daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam te xam naa ne lii moom yàlla moom da koy yóbbu directement àjjana ndaxte lu mu dimbali si ay doomu aadama rawatina man mi kenn xam lu mu toll fii si Pikine ndax sëñ Mourou Niang yóbbu yóbbu na ma Casamance yóbbu na ma Pire yóbbu na ma Kébémer yóbbu na ma Ndar yóbbu na ma Alassane Djigo yóbbu na ma Amadou Bari yóbbu na ma Amitié amul fu ma yóbbul kon nag ko dama koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana te gore ji mu gore woon si Ablaye senegal yëpp nangul ko ko yal na ko yàlla fay xolam waaye nag gore ah yàlla day atte gore de gore nga gore nga faatu ngi teg ñu teg sàpp bi ñu lay jule ñu ne ko gore ñu nii tëdd loolu rek way la kooku kooku yàlla ko yóbbu àjjana ndax ñu ngi dimbali si ay doomu aadama kenn xam lu mu toll di ko gérer ay di ko gérer na ko la njaga man maa koy jaare ma sax xool di ko jaare sama bopp nag di ko jaare waa Sénégal ñëpp di ko jaare nag monsieur le moom tamit tëggalu na ko drapeau Fatick lépp sama kanam la woon waaw maa koy jaare waa Sénégal yëpp yàlla na ko yàlla yërëm xaral ko àjjana suuf si comme si daraje Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam si barke alxuraan karim wasalaam merci xam na ne tey moonu làmb am nañ naqar ak tiis quoi vraiment waaw vraiment tey xol yi tooy na quoi ndax ku sori woon ci ñun moo fi jógee wax dëgg fa yàlla ku baaxoon ku ku ku mënoon nit tamit koo xamante ne mën naa ne lépp lu ñuy wax daraja ci àdduna amoon na ko te mun boo ñëwee fekk këram munoo ko xam ci moom lépp lu ñuy wax teraanga ci àdduna yàlla suñ borom mayoon na ko te boo ñëwee këram doo ko fekk ci moom tey ji boo fi ñëwee moo gën a oyof ci gars yi wàccee boppam am jàmm xam nga yamale ñëpp xamewul mbër mu mag ak mbër mu ndaw kon vraiment suñ Modou Niang ñu koy ñaanal yàlla na ko suñ borom xaare àjjana yi fiir daw si yàlla na suuf Touba woyof ci kawam waa ku wax général xam ne sëñ Modou Niang yàgg na ko a bëreel ñu demee bay ko ay woon suñu mbër mais tey jii fexe na ba monde làmb xam nañu te yaakaar naa ku la fekk ci benn mbir ngay débuté kenn nangu laa jël kenn nangu laa xool mu jël la génne la kooku balaa ngaa sant kenn war nga koo njëkk sant balaa ngaa gërëm kenn war nga koo njëkk gërëm ndax tey jii nii fi ñu yegg ñun ci làmb moom am na ci paar bu rëy rëy barki arxuraan moom a njëkk a bëreloo grand combat waat ma ay grand combat kon nag ku sori woon ci ñun wane na ginnaaw mais nag àdduna moo demee nii ndax kulli nafsin saay xatil mawti la ñu wax baxan bu ñam dund di nga ñam dee amaana moom moo moom moom la ayam ñëw mais ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko suñ borom xaare àjjanay firdawsi yàlla na xippee ci àjjana yi gën a kawe ñun loolu lañ mën di ko ñaanal wallahi azim tey ji buñ yoroon li koy yóbbu àjjana kenn du ko fa jiitu barki arxuraanul karim ndax suñu yéene la ñuy waxee quoi wallahi azim nit ku baax la woon vraiment. waaw amoon lay dénk njabootu làmb lan lay doon. waa di wax rek nañu roy ci moom ndax ku ne xam na ni loo gis ci àdduna rek ci ay nettali lay mujjee loo gis ci àdduna tamit fii lay mujjee kon mu uh, ak lu mu mënti xew na ko gaa yi di bàyyi xel bis bii ndax àdduna amul solo quoi. Uh, bu naan àdduna amul solo nekkul dañ fee war a ñëw pour feñaak wala bañ a jaayante dañuy jaayante dañuy dund dañuy def li nit ñi di def mais nañuy bàyyi xel bis bi ndax bu fekkee teraanga ngay jaay saa boo génnee rombuloo loo moomul bu fekkee am am ngay jaay tamit saa boo génnee di nga gis loo moomul kon bul ëppale nit ki mukk ba yaakaar ne yaa ko gën wala yaa ko moom te kii ku ko xam xam ni moom doxul woon ci daraay gis leen doxul woon ci daraay wane ni am naa lii wala awma lii am kóllëre la tamit ndax ku ne xam na ni ba muy jàpp Ablaye Wade mën nañ ni ñun ay ndaw lañ wala boog buñ juddoo ay xale lañ te ba fi mu toll ni kenn mësul taxaw dégg ko mu wax ci moom lu ñaaw te bëri na ay moromam yi fi nekkoon àndoon góor gi ba fi góor gi wàccee dañ koo bàyyi te ko fële te ci ay biir wax dégg naa ci nit ñi mu naan da doon wàcc sax pour def drapeau Ablaye Wade kon mu ngi noonu kon kooku nit du ko ëpp coloré ci àdduna kon ñu ngi koy ñaanal daal yàlla bu ko cat jiitu bàmmeelam vraiment yàlla bu ko cat jiitu bàmmeelam ok